abli bi jaayi man huwal muxtaar wa dunya wa uxra xayra ma axtaar wa abli bi jaayi man huwal muxtaar wa dunya wa uxra xayra ma axtaar wa abli bi jaayi man huwal muxtaar wa dunya wa uxra xayra ma axtaar wa واجعل حجابا بيننا وبينها كل آسا والتكفي أن العين يا الله يا نسير يا جليل إني حقير مهدم سليل فلتغنني بك وهب لي العرب بمن على جملة هجم وعرب سيدنا محمد سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل صلاة وصليا وسلما عليه وكل من خد تما ilayhi waxfir sunubi wa taqabal amali وليهب خيرا منا وأمل يامن على أن مكان والقرن إني ساكن هنا وبمرن فكن أنيسي وأشفني من السقم أتى أكون سالكا خير رقما يا هدلو يا مسلو يا من يؤمن أنت مجري هنا يا مؤمن fa abadan kun mu'mini ya sal jalal min kulli su'in wa azabin wa dalal ya man ala an zawjatin wa an walad ni wa hot jamihi ahli sal balad wajhal ilahi maskani tuba abad mitat miha bijay khairi man abad wajhal ilahi maskani tuba abad mitat miha bijay khairi man abad wa salliyan alayhi afdal وآله وصحبه سوي صلات وكل من خدمني أو سارا فنجيه واغفر له أو سارا وكل من خدمني أو سارا فنجيه واغفر له أو سارا وكل من أحبني وما لها إلي فرتقه أدا أو ما لها وكل من ستمني أو لما فأبو له توبة واستسلاما فكل من على أذن اسمه بيا فليقلب قلبه يا ربي يا وتكفني أسى جميع العالمين وتكفي أسايا يا ربي أمين وجهل بنائي بناءها فيا يجرني إلى قيور صافية وجل بنائي بنائي وعلم وعمل بسنة وعلم وجل بنا إياها بنا الاعتداء وتكفي عني كيد كل ذي تدعى وتكفيني دهر أساسيتين ويس به الباقين في الأوتاد وتكفي عني كل شخص لم يرد وانت فاترفع الزريقا إذ يرد ولتترفع الجملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث أن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيق إلا بالله بركة بروم توبا بركة سرين سالم ñu ngi leen di siyaar bu baax mbokki taalibe yi mbokki jullit yi di leen siyaar bu baax a baax a baax yéen waa kuréelu fédération Pàkku Lambaay ñu ngi leen siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ci bis bu tedd bii nga xamante ne bii sëriñ Mouhamadil Mountakha jox nañu ko ñu koy màggal fii ci pàkku Lambaye tey yemook benn fanu rajab ak le 13 janvier ñu ko ànd mbokki taalibe waa pàkku Lambaye gépp rawatina soxna yu baax yi nga gis image bi ak suñu jëwriñ sëñ sàmm yi nga xamante ne ñoo bokk liggéey bi. ah ñu ngi sant bu baax a baax a baax nag di ñaanal yàlla suñu borom fekk nañu kaat yu bare bare bare bare di ñaanal waa Pàkku Làmbaay suñu borom yàggal leen fi liggéey bi nga xam ne teg nañ ko suñu loxo ayaat ñu koy liggéey ah xañ ne ñàkkul ne gis nañ ci leen naqari waaye dañ koo muñ saa bu ñëwee dañuy woo yëkkati ko teg suñu loxo leen neex leen naqari kon ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne liggéey yombut sor liggéeyal mbooloo waaye ñu ngi ciy dem ak yéene ak liggéeyal sëñ Tuubaa moo ñu tax a jóg loolu rek lañ ci gis loolu lañ ci bëgg di sant di gërëm bu baax a baax a baax suñu jëwriñ seen jib mi nga xamante ne bii moo yëkkati liggéey bi ànd koog jëwriñ pàkk làmbaay yëpp teg ko suñu loxo ñu ànd koog soxna yu baax yi ku mel ni soxna Abidja mii kenn ku ne xam na ko ci liggéeyul pàkku làmbaay ak soxna Soore Ndiir moom it jàmbaar la ci liggéey bi ak soxna Ndey Seen ak soxna Ndey Asu mii nga xamante ne ñoo nekk ci yi saa su ma gestoo gis leen muy guddi muy bëccëg saa bu ma leen wooyee lépp lu jàpp dañ koy bàyyi ànd ak man te kenn ku si ne yaa ngi sa borom kër di sëy waaye saa bu ma leen wooyee lépp lu ma leen woo ci liggéey sëñ bi dañ koy bàyyi ngir sëñ Touba kon sëñ Touba rek laa leen di la sëñ Touba même fay te kenn yaakaaru ko du moom te liggéeyal ko rek mooy joxe fay yàlla na nu fay ñun ñëpp si barke borom Touba sant nañ bu baax a baax a baax a baax di sant suñu moo yore liggéey bi di sëñ Ngom moom it sëñ Touba rek ko ko ñor ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi ndax liggéey bi ba mu ci nekkee ba léegi wax dëgg yàlla gis nañ ci taxawaay ni mu ci taxawee. di sant waa Pàkku Laab Mbaay gépp di ñaan yàlla suñu borom liggéey bi képp koo xamante ñëw nga fi ngir liggéey yàlla na la sëriñ Muntaxa fay yàlla na la sëriñ Touba fay yàlla na nu yàlla defal jàmm defal nu ngëneel te ndaje si ngëneel sëriñ Touba bu a a a أبلي بجاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبينها كل آسن والتكفي أن العين يا الله يا نسير يا جليل إني حقير مهدم سليل فلتغنني بك وهب لي العرب بمن على جملة hujumin wa arab asalaamaaleykum wa rahmatullah leen mbokki jullit yi ñaan yàlla sama kàddu fekk leen ci jàmm di sant sëñ Tuubaa bu baax a baax di sant sëñ Muntaxa mi nga xamante ni mii moo ñu jagleel bis bi di sant waa pàkk bi ñëpp di sant nag mbooloom suñu jëwrin yi di sant suñu jëwrinu waañ seen alsaan ak sëñ Sam ak sunu jawrin seen jib ñoo ngi koy sant bu baax ndaxte moom mooy sunu jawrin fépp fii ba Masalik fi ñu mënti dem rek day jiitu ñu topp ci di sant sëñ Alsaan bu baax di sant jigéenu Pàkku Làmbaay yëpp ndaxte ñun ñoo ngi leen di sant bu baax di sant xale yeeg ñëpp di ñaan yàlla ñu yàgg koo màggal ci barke Sëriñ Touba barke sëñ Muntaxa mi yàlla may ko gudd fan ak wér te mu yàgg fi lool ci jal bi ci barke Cheikhul Khadim ñun daal sant nañ ndaxte lii moom dara gënu koo neex waaw ñoo ngi sant bu baax sëñ Ngom yooyu ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax ndaxte saa yuñ taxawee rek ñu gis la suñu wet suñ gestoo gis la kon nag mbir mi moom dañuy sant rek ndaxte sëñ Alsaan boo waxee wax na kàddu yëpp ñoo ngi sant bu baax a baax a baax mbooloom ku fi ñëw rek yal na sa sëñ Tuubaa faj say aajo te lépp luñ fi ñaan yal nañ ko bokk ñun ñëpp ci doole Cheikhul Khadim ci barke sëñ Muntaxa bis bi daal rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax. إلي فرتق أدن أو ما نغوى وكل من ستمني قولا مغوى فأبله توبة واستسلام مغوى فكل من على أذنه بيا فليقلب قلبه يا ربي يا وتكفني أسى جميع العالمين وتكفيم أسايا يا ربي أمين وجهل بنائيا بناءها فيا يجرني إلى قيور صافية وجل بنائيا من علم بسم الله أعوذ بالله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ah, di wax naan suñu teewaay fii tey euh, ñoo ngi teew fii ci ndigal loo xamante ne bi Cheikh Mouhamadanil Mountakha moo ñu ko joxoon man nag euh, teewaay bi ma fi teew tey mën naa ne si wàccaayu ñaari guddi ndakaaru si laa fi teewee euh, di sant yàlla bu baax di wax naan ñun daal ñoo ngi ni taxaw di liggéeyal sëriñ bi liggéey bi nag dañ ciy liggéey ngir am ak pay ndax sëriñ bi dafa wax ne moom dafa ragal bor ndax dafa amuk pay ba pare tamit ñun waruñu def lenn suñu ginnaaw lu di ko liggéeyal saa su nekk saa su suñu xel nekkee si moom war nañ koy liggéeyal comme moom dafa waxoon ne wallaahu yanzuru nii wal xalqu tatba'uni fil barri wal bahri sa nafain bi laa darar comme que moom mooy borom njëriñ loo xamante ne bii àndut ak ak lor kon ñun chaque jour dañoo war di ko liggéey di wax naan jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Mouhamadanil Mountakha di sant suñuy ñaari waajur di sant yàlla suñ borom bi ñu juddoo ci ak murit nàmpatalu ci ak murit bëgg xam tamit lan moo nekk ak murit loolu daal moo li nga xamante ne bii moom la ñu amoon ci ay kàddu tamit di sant jëwriñ alsaan ak taa abi mii nii di sant euh, tonto sëriñ di sant ñi ñu bokkal liggéey bi ñëpp di wax naan yàlla bu mu nekk suñu mujj gi liggéey yàlla bu mu nekk suñu mujj gi liggéey yàlla nañ koy taxawaay ati at bi jaay seydil wujjoot yàlla nañ ko suñu borom nangul barakati seyxanaa Ahmadal Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وتصبت عنها فيه جماعة تقيمها الصلوات الخمس ذهبا يقيمها وتصبت فيه جماعة تقيمها الصلوات الخمس ذهبا يقيمها ونجنا من سر هذا ثمني وسر خيره وكل الفتن والتقنا زر النصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال وسودانها في سر الشرق والمغرب والبلدان وترى ما في الأرض ترى وسما من ظاهر وباطن اكتتم يا لطيف السلام عليكم ورحمة الله bi ñu sante yàlla juri ci yonent bi ñooy sant sëñ Muntaxa bi nga xam ne moo ngi jagleel bis bii di ko ñaanal Mbàkke baal la yàlla na yàgg suñu kanam di ñu yàgg sas ay liggéey ko ci doole Cheikhul Khadim ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ndax liggéey bañ ci nekkee ba tey gisuñu ci leen loo xam ne lu ñu naqari la mbaa ñu gis ci leen loo xam ne lu ñuy tiit la kon ñu ni sant bu baax a baax di sant sëñ Alsaan sant tonto jib bu baax di sant sama yaay nga xam ne moom tamit bi jàppee ba tey bàyyiwut ñu koy sant bu baax a baax baax di sant sama mag yu jigéen yi ak sama tonton sama papa yi yëpp di ñaan yàlla yonent bi ak Sëriñ Tuubaa bisu tey bii yàlla mu doon suñu bis boo xam ne moom la ñuy mujjee gisante ci doole seexu Khadim ñu koy ñaan di ko teg ci loxoy sëñ Muntaxa te xam naa ne bu neexee yàlla suñu borom dinañ ko liggéey ay at i at ba màgget ba suñuy doom ak suñuy sët di ko liggéey loolu la ñuy ñaan ci doole Cheikhul Khadim bis bi nag rafetlu nañ ko bu baax a baax ndax bis bu ñëwee rek ñu def ci suñu kéemtalaay kàttan def ci luñ mën ak luñ mënul lépp ndax sëñ bee ñu ko jagleel nag sëñ bi nag lu mu la jagleel da ko war a respecté di ko def comme ni mu ko bëggee mu set sell te yiw noonu lañ ko sëñ bi waxee woon te noonu lañ koy doxalee waañ wi nag moom gëm naa ne buñ ci nekkee ba tey bii ginnaaw grâce à sëñ Alsaan moo tax ndaxte nag saa buñ buy dem dinañu woo dinañu nemmeek dina xam ci lan lañ nekk te saa buñ paree suñu liggéey suñu borom kër dañoo wóoloo wóoloog moom ba nga ne saa buñ paree suñu liggéey dinañu tegaat suñu loxoy borom kër bu ñuy dem ñoom moom la ñuy tàggu waaye bu ñuy dewaatit moo ñu jébbalaaj suñu borom kër kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yonent bi Serigne Touba yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñun ñëpp ñu teewee ko ay déwén déwén ci doole Cheikh Khadim مؤمن أنت مجيري أنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سر جلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على أن زوجة وأن ولد kulli wa hut jamihi ahli sal balada wajhal ilahi maskani tuba abad mi bi jayi khayri man abada wajhal ilahi maskani tuba abad mi tatmiha bi jayi khayri man abada wasalliyan alayhi auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim barkeb Serigne barkeb Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane maa ngi leen di ziare yéen ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi teew si ci bis bi nga xamante ni mooy su xasida bi nga xam ne sëñ Mountakha dañu koo jagleel woon ñun waa Paku Lambaye nga xam ne at mu jot dañ koy màggal maa ngi ziare ñëpp daal di wax ne liggéeyal sëñ Touba daal mi ngi nii nañ ci nekk rek nañ ci nekk rek liggéeyal sëñ Touba rek moo fi des ci liggéey leneen desu fi ñu nag dañ di ay ndaw te bàyyi lépp jël ma dëgg ma sëñ Touba ànd ko sunu yaay ji Taabija ak soxna sëñ Alsaan ak jëwriñ Jibi Diouf ak Serigne Sam mi ñi ngi ziyaare ñëpp nag wax ji nag man naa gàtt ndax presque jërul ñuy wax ndax sunu taa bi ja boo waxee alsaan wax sunu kii wax jërëtu ñun ñu ci saani sunuy kàddu ñu ngi si ziyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ci bàkki Serigne Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di sant yàlla bu baax a baax a baax parce que euh, ku yàlla boole mbooloo ngir sëriñ bi rek loolu cant la kon foofu dong buñ fi yeman baax na da ngeen a baax rek waaye yàlla mi am ak fay ak sëriñ Tuubaa yàlla na fayal boppam di sant sunu kilifa yi ci biir pàkk bi waaw di leen ñaanal bu baax a baax a baax parce que bis moom bu jekkee ñëpp jàpp na ca te ñoom ñëpp jàpp nañ ci ba mu taaru kon yàlla nañ ko def ay at yu bare bare bare bëri te ànd ceeg ndimbal ak ndigal barke mu Mustafa kon man dama bañ na wax sax waaye sëñ Alsaan dama forcé kon maa ngi yow foofu lépp ñaal ñaan la yal na nu nungul ci barke Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf. waaw baax na jërëjëf sëñ Sam mënoo see ñàkk wax ndax yaay suñu kilifa ci liggéey bi depuis ñu àndee ba léegi wax dëgg yàlla dana yàgg foo xam ne sax su mu bëggee si danga naa ma doxal jël lépp jébbal ma ko wàcce sa bopp jël jiital ma te bu dee at yaa ma ko pële mën naa ne bu dee màq ma tamit yaa ma ko pële waaye fépp fu dem rek da ngay nangoo def si ginnaaw n maa jiital. loolu tamit maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax xañ loolu suñu borom moo ko dogal waaye tamit nu ngeen ma jàppe rek ni ma leen jàppe moo ko raw ngir sëñ Touba nag rek nam ko tax gis naa wàccaaw yu ngeen ma jox bu baax a baax baax waaye sëñ Touba rek a tax ngeen jox ma ko waaye sëñ Touba même fay tamit moom laa leen di bàyyil yàlla na sëñ Touba fay si barke borom Touba comme ni nga ko waxee si pàkku lamb waa magi pàkki bet ñu jara sant lan ndax lépp loo xamante ne bii dugg nañ ci suñ demee si ñoom dinañ yëddal seen alal boole koog dinu ñaax ñaari guddi yi man mi demee si Baye Moustapha dana ne man de yéen moo gën te si yéen laay roy ndax saa bu ma leen gisee rek sama pas-pas day gën a yokk te ku ne xam ne Baye Baye euh, Moustapha du waxantu ndax foo ko fekk si mi ngi a xasaayid yi moo foo ko fekk mi ngi ci lu baax te nee na saa bu ma leen gisee rek sama pas-pas day yokk kon ñun nañ gën a fidluwaat suñu laxasaay te xam ne lii ñu nekk yombut liggéey sëñ Tuubaa nag yomb na waaye sëñ Tuubaa liggéey loo moo jafe te jàpp na ne sëñ Tuubaa dañ liggéey ndax waa ñu tàng na metti na waaye fi nu yàlla féetale te jàpp na ni fi la nu sëñ Tuubaa di fayee kon na leen ci gën a waat pëstéef waat gën a jàpp gën a booloo gën a bokk gën a gën a gën a ànd te sëñ Tuubaa rek tax ndax loo fi jàppee nit lu dul sëñ Tuubaa bis dina ñëw nga bàyyi ko moom waaye loo jàpp ngir yàlla ngir sëñ Tuubaa nga jàpp ko doomu aadama chaque jour sa coofe lay gën a day gën a yokk ci moom ndax saa boo ko xool rek sëñ Tuubaa ngay gis ci moom kon yàlla na nu yàlla gën a jàppale gën noo gën noo sàmm ba bis bi li ci des sa kës néew suñu borom gën ñu jàppale ba mu gën a rafet ba ñi nga xamante teg nañ ko suñu loxo suñu borom gën tax ñu bëgg si ñu bëgg si ñun wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أنت مجيري أنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سر الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على أن زوجة وأن ولد مني وهد جميع أهلي البلد وجهل إلهي مسكني توبا أبد متتمها بجاي خير من أبد وجل إلهي مسكني توبا أبد متتمها بجاي خير من أبد وصليا عليه afdala salaat wa alihi wa sahbihi sawi silat wa kullu man khadamani aw sara fa najihi wa aghfir lahu aw sara wa kullu man khadamani aw sara fa najihi wa aghfir lahu aw sara wa kullu man ahabani wa malaha ilya fartuquhu odan aw malaha wa kullu man satamani aw lama fa abu lahu tawbatan wa istislama fa kullu man awa azan annahu biya falyaqalib qalbuhu ya rabbi ya wa takfini asa jamihil alamin wa takfim asaya ya rabbi amin wajhal bina iya bina hafiya yajuruni ila quyurin safiya wajal bina iya bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa ilmi wa وجل بنائها بناء الاعتداء وتكفي عني كيد كل ذي تدعى وتكفيني دهر أساسيتين ويس به الباقين في الأوتاد وتكفي عني كل شخص لم يرد وتفطرف الزريقا إس يدد ولتطرف الجملة ما يفسد أن يدي وأن داري سريعا حيث أن وتدخل المصلح في يدي وفيها داري وثابتا هو بالآدي وفيها وأهلني وأهل من يؤينني وتكفني جملة ما يهينني وأهلني وأهل من يهينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار ومن على علي بما ينجار ومسكني سلم من الفجار ومن على علي بما ينجار وجل ربي مننا المهاجلة جالبة للمنن مهاجلة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم